la ci Moodu Xarañ Lo ñu koy wax course jabong yaakaar naa ne fan yii yëpp kenn dégg ko nag mu làqatu lool <laughs> alaaji course jabong bu baax bi ñu koy nuyu bu baax nekk course ci Moodu Lo ah, bu coow li bare nag il faut nag xam nga ma cof ko benn une heure vingt minutes rek ba trente minutes course jabong ñu ngi lay nuyu bu baax di ñaan ñaanal jàmm. Fadam maa ngi lay fay. di la nuyu di la ziar vraiment di di nuyu ñi nga xam ne tey ñëpp ñu ngi seetaan ci live bi donc euh, di di xaar say question rek Fadam <laughs> tay yi nag gis naa ne yaa ngi may invité. loolu xam naa ne nga daw di nga daw mm. ndax Tapha kan waaw fan yii lu mu wax gaarawaale la. lu mu wax rek gaarawaale la. waaw ah, gis naa gis naa ne Tapha Kandji dafa baax rek dafa dafa dafa kañ son dafa rek. Hmm? dafa di rek ah xam nga dafa des bon parce que deux ans ou trois ans. vraiment ay morom ngeen lu dëgg donc te Modou dafa def lu lu rëy si donc dafa def lu rëy si làmb donc euh, jaadu na mu jël ay ñoom Boy Niang ak ñoom Ama Baldé pour bëreeg ñoom hmm. lu dëgg parce que soo xoolee du hmm. Hmm. palmarès moo leen di boole lu dëgg donc euh, Boy Niang ak Ama Baldé man sama yéene mooy ñu tabax ay étages yu bëri ñu nga xam ne ni kat soo robee ñu ne ah. Ama Baldé moo ko moom Boy Niang moo ko moom bu dëgg. donc Modou bërek Modou ñoom dinañ ci am. mais bu dee ndam la. bu dee ndam la parcelle yu dëgg. coow laa ngi doo ko tàmbali nag. coow laa ngi doo ko tàmbali. mais ko si jëm day dagg rek quoi day dagg rek xaaral ma génn. xaaral ma day dagg rek. ah xaaral xaaral xaaral ma taal ma gars ko su jàmm day dagg ndax dama bëgg coow tàng coow lu tàng jër laa bëgg coow lu tàng jër ndax bu leen fàtte ne nag saa yu ngeen déggee ñu ne Modou Lo Boy Niang validé nañ ko semaine boobu ba ca topp Modou Lo dem na ca ko su jàmm fa la ñu pare jee combat bi ci moom. na ko bàyyi xel bu baax foo tafaakaan ji jëm nag dina ma jaaxal lool waaw ñu ngi nuyu nag euh, ñu ngi nuyu nag waa kër Modou Lo neex a faral dimanche ñu ngi leen nuyu jëm ñëpp waaw ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu ñu ngi ñu ngi nuyu waa kër yëpp ñu bii la bii baax bii lañ xam yaa ngi may bu baax ñu ñu ngi nuyu waa kër Modou yëpp ñu ngi nuyu bu baax di leen ñaam waa kër neex faral dimanche ñu ngi leen nuyu di nuyu képp koo xam ne nii supporteru Modou Xarañ Lo nga ñu ngi lay nuyu. di nuyu waa parcelle un ba vingt six comme ni ko Modou di waxee. mais mais mais mais mais mais ko su ndax Modou Lo jël Boy Niang numéro deux du risque ci moom. ah mais Fadam. bari na. Modou ñaata combat la def. bëriwul de ñaata defet la mm-hmm. ñett. soo jëlee ñi ñett chiffre trois. ñu ngi si ñaata deux mille vingt trois waaw. Mm, parce que yaa ngi làmb de yaa ngi làmb de. non maa ngi lay hmm. làmb. Hmm. chiffre trois dafa dafa baax. kon tey ah. tey tegtalu Modou yëpp ci titre roi des arènes ci at mii daal la préparé woon. ah mais yàlla moo tuddoon ne du du bëree si ñaari at xam nga tey. Euh, hmm. du si du si coobareem lu dëgg dañu dugg si Covid. Hmm. ñu tëj lépp. donc boobu. ma hmm. fekkoon Sénégal. làmb ji. Mm-hmm. tëj na lu yàgg kenn bëriwul. du dëgg. donc loolu jàll fi. Modou mm-hmm. blessé. donc ñu mm-hmm. reporté combat bi. tey Ama Baldé moo blessé. ñu ngi koy ñaanal. loolu kenn dañuy yéenewu ko ko mais nag dafa am wax yoo xam ne jarul wax parce que yàlla moom mooy moom mooy dogal parce que nit ki di su coobareem su blessé si entraînement mais wax day rafet du dëgg parce que fadam adduna bi dafa jeex ba pare du dëgg loo mënta wax tamit aussi jaru ko waaw jaru ko lu ñu rafetal rek gis nga do ko combat bi sport kese la après day jeex ñoy bokk nday lolu nga wax lu am solo la te yaakaar na ni ñepp dégg nañ ko. fi may ñew ak yow nak ci coow moy waaw modlo ak boña tay ji en tant que entraîneur professionnel ci modlo te modlo ne pare na pour break boñang Niang na pour lepp dajé boña ndax boña amna lu jaxal modlo jaaxal kon yow xeex bi ñuy coow ci Boy Niang numéro 2 mi gisoo ko ci moom. non hmm? gisuma ko. gisuma ko ci bëre gisuma gisuma ko si xeex bi. te ñaari. waaw te ñaar laa lay firndeel. xoolal Boy Niang bii bërek Lac ak Modou Lo bii lak Lac de foofu foofu moo gën a nekk à l'aise. jàppal. waa benn. jàppal du ma xuus. Hmm. chiffre trois chiffre trois. mais ku su jamono. Boy Niang nekkee champion ci làmb. waaw nekk ndaanaan. waaw. tey nga ñëw teg ay argument ne gisoo ci Boy Niang bëre bu mën a jaaxal Modou Lo gisoo ci moom xeex bu mën a jaaxal Modou Boy ñang neena combat mook tafa ak ki nga xam ne ni mooy di de guerre gu kenn considéré ci carrière am ak kole, mu jëm ci lamb c'est que faram so xolé sama sen premier combat bi nga xam ne tey Modou bëre na ko ak. ak foofu foofu soo xoolee man mii def judo man mi def karaté kii box nekk ci entraîneur. soo seetaanee combat boobu sa xol day sedd. parce que bëre moo feeñ bëre xeeñ feeñ na fa xeex feeñ na fa. jàpp tànk. jank jàpp tank yëkkate bi ci kaw mu wàccaat man lu may lu may wax rek dama koy wax ci cadre sport xam nga ci cadre sport ak ci cadre xam-xam ci coach bu ma nekk tam dama def judo xeetu bëri yi nga xam ne tey lépp am na si ñu ngay gis si bëre mu ngi si da nga koy gis ci judo muy tabaxal muy mbot muy xëcc tank bi nga xam ne tey même Zarko bi nga xam ne tey bëri nag Ada Fass nu ma ko daanee tamit ah boobu tamit si mu soo xoolee si xeetu judo mu ngi fa donc ça veut dire que bëri presque judo la lu leen weet lu leen lu leen lu leen séparé wu rek mooy ki moo ne bi nga xam ne ñu koy sol judokaay yi mais man mais man dama gis ne Boy Niang numéro 2 buy bëri mbër dalay dalay dalay dugal ci benn piège boo xam ne nii ci biir bëre mooy dalay gëmloo ne dama laa ñeme te dama laa ragal wala mu gëmloo ne dama laa ragal te dama laa ñeme. boo gisee Boy Niang tactique de jeu boobu muy bëree di ko xeexee ci làmb pour su jabon loolu loo ci jàngatee. mais lan la wax Fadam keroog bu muy bëree Boy Niang muy bëree. Mm-hmm. lan laa la wax il faut mu indi bëre bu set. Mm-hmm. non box xeex bu set. Mm-hmm. il faut mu indi bëre suuf te si bëre ba si bëre ba bëre suuf si mooy daan. maa ngi dégg xam-xam laa lay wax nag Fadam waaw bëre dafa am xeex dafa am xeex dafa am. bëre dafa am waaw te Modou nag ah am na expérience ci làmb mais man dama dégg damay dégg nit ñi naan Boy Niang guddi yi ñu toll mooy ëpp doole Modou ci làmb moo ko dàq xeex man loolu dama koy dégg ci amateur yi bari ñu koy wax. mais Fadam ku nga ku nga magee benn at mm, wala mm, ñaari mm, at kooku ay morom ngeen du dëgg comme Modou daf pendant dix ans ah hmm. loolu mun nañ am ay doute quoi mais Modou xale la Modou xale bu ndaw la hmm. Hmm. Modou xale bu ndaw la c'est que nag xale tax nag nga ñàkk fayda xale la jox responsabilité Modou il est il est il est professionnel su amé combat day entraîner su amul mhm. combat day entraîner du dëgg Fadam donc euh, motax tay mané la ku nga mané magé ñaari at wala ñetti at dama gis né dama gis né benn sens ci combat bo xam ni ci digënté Modou ak boñam ndax man damay top lamb chaque jour ci carton yalla bu lolou yalla def nako dama gis né boñam Niang numéro 2 ci carrière am dafa mëne combat bu long terme combat bu gudd te Modou combat yi gën a réussir ci carrière am mooy combat yi diire. waaw mais. Hmm? xam nga adversaire aussi da nga koy jàng. Modou du ay xale ñoo koy yore. Hmm. ñoo koy gunge. Modou am na ay mag yu koy gunge. am na ay coach yu nga xam ne. Hmm. tey xam nañ bëre.

waaw mais nag. Hmm. Ah, làmb ja su jotee ah su boobaa nag moom di nga gis. waaw ndax boo ñaa ngeen waa boo ñaa yaa lay bàyyi xel ñoom ko ñoom ñoom ñoom ñoom dafa kañ yeeg gars yi. Ah. non dafa kañ yi dafa baax rek. dafa dégg naa ko dégg naa ko dafa kañ yi dafa baax rek. dafa jot na nga wax ak non Tapha Kandji dafa neex rek. mais nag mais nag borom baax la borom baax la doo ko doo ko doo cedd non ah ñu dey ah mais ñun nag ay ay borom kii lañ de. <laughs> ay ustaas lañ dama gis ne ñoom dañoo jël dañoo dañoo commencé jël bëre Boy Niang di ko favoriser ci kaw Modou Lo. waaw <laughs>

Wajar. kon bo ñang songu yoy mi songu mbeuri di len takki ci kaw di len xajal di len dof ci xabal boo mu len biin diko def mbeuri ndax lolu bu fa agge Modou Lo. waaw mais Modou dafa mbapat mo Modou dafa mbapat de ba pare ah. Hmm? xeex bi moom macha allah. fada fada man ku takal takal gang Mm-hmm. man ku ma ku ma takkal gan wax dëgg yàlla naa la defal entraînement bu nga xam ne tey musoo ko musoo ko xam. waaw surtout. madame naa la naa la entraîner façon. entraîner bu nga xam ne mm-hmm. musoo ko entraîner. waaw gis naa ce reportage bi nga gis. Franc muy bëre ak Sokh. Mm-hmm. am nga loo mm-hmm. am nga loo fa waxoon. dellu si dellu si. Fadam fu nga fu nga Fadam dellu si dellu si. non mais ku si jëmoon tey ay menaces la teg. Mm-hmm. non mais Fadam. waaw dellum si xeetu entraînement bi nga xam ne entraîné naa ko. ci corpulence da ngay gis ne yaa ngay yaakaar ne moom mbër yi ñoo toll doole te leen di ëpp doole ñaari yoon. te ci wàllu xeex da cay progressé progressé boo xam ne nii day dóor mbër ba ba ba bëri te du ko yëg te loolu yaakaar naa ne ñoom ñëpp bu ñu bëggee xeex ci Modou Lo lañ ko gisee mais dama gis ne dama gis ne barki dem dama dalal Tapha Kandji live bi mu ngi sama page YouTube Tapha Kandji ne ma bis bu Modou Lo bis bu boo Niang gëddee Modou Lo Modou suul ay tànkam boo Niang Modou Lo da ko yor ba ci Boy Niang day yenu Modou Lo ba ci kaw tur ci suuf muy wax Tapha yi mu jaaxal ma lool. Ah. Ah, nga Boy ñaan nag mun na fecc de. ku su jabu la wax ni kon Boy ñaan dal fecc leen la ëpp lay Modou ci lamb ji. ya mun na fecc Boy ñaan mun na fecc de. dafa dafa Tapha Kandji nekk ci wet bi di di di di dóor <laughs> dafa tey Tapha Kandji. mais Tapha Kandji mais. ak bo mu na fecc. gars yi ki may dalal ñi di waxtaan ak moom mooy coach dem nekk coach international nekk coach Modou Lo bi nga xam ne nii moo ko yor ci judo ak boxe ak wàllu entraînement yu bëri ci leet option ak ay yenn xeetu yenn xeetu affaire yu bëri yoo xam ne nii bëri ngeen gis Modou Lo challenge boobu mu doon def ci wàllu boxe moom mii la ko doon defal jii boo nee Boy Niang fecc daal la dàq Modou def may jaaxal ko si non booy ñaan nag mun na fay de. trop trop trop trop trop. ah mais dafa kañ il faut moo. delloo il faut moo delloo ko monnaie bi. ah waaw. waaw mais mais mais daal dafa kañ xam naa ne mun na fecc de. non mais dama gis ne. dama gis ni gars yi ñoo jël Boy Niang numéro 2 guddi yi ñu toll jox ko ay favori yu bëri ci kaw Modou waaw mais parce que Boy mm-hmm. Niang nag bërikat la champion la dañ ko koy nangul de. Mm-hmm. champion champion dëgg la. parce soo xoolee nu mu bëree nu mu bëree mm-hmm. keroog. bëri bu la ko. mais bëri bëri krogom bi def na ci ay foot yoo xam ne bu ko defee euh, yooyu da ngay jàpp ne da cee def am na ay foot yu ci def yoo bu ko ci Lo Lo ji <laughs> ko wax ndax man jot naa ay information yo xam nii bi bi bi bi bi xaar amna na kuy woote xaar am na kuy ko la mais maa ngi nuyu ñii di seetaan ngi seetaan ñii di ñii di ñii live yëpp. dégg xaram <laughs> nga li gën a garaaw. ak tubaab bu Mboy Ñang waaw moo woote nee na bëgg ma dugal ko live bi ma waxtaan ak waaw. <laughs> tey man ak live tey. Ah. <laughs> man su may su may. Fadam su may su may laaj ak yow bëgguma kenn bëgguma kenn kenn duñu nga dégg ko. une minute Fadam. Fadam du ma wax ak du ma wax ak kenn. maa ngi lay envoyé ko. <laughs> non Kostou Diabong nee na non rek ba beneen yoon ngeen jàkkaarloo ndax xam naa ne tuuti na mais ko su da li ko su jabam wax lan moo la ci lan moo ci yéeme ak lan nga ci dégg. maa ngi nuyu mbokk na di lay suivre yëpp ko su jabam bu baax maa lay maa lay nuyu yow naa euh, di ko wax ne ko ñu ngi gis liggéeyam di ko rafetlu ah. nag bu mu fàtte ne moom moo préparé woon ko daan ko ah bu mu fàtte de. non boobu non boobu nag non non non boobu il faut ma leer il faut ma leeral nag. mais boobu. il faut ma leeral il faut ma leeral. il faut ma leeral il faut ma Fadam. Mm-hmm. Fadam il faut ma leeral. Sa Thiès. Mm-hmm. man dama jógee France. Mm-hmm. dama jógee France. ñëw yegg Sénégal. xam nga ñun olympique ñun foofu foofu la ñu foofu la ñu. walaay depuis temps xale foofu la ñuy dem di fowe. Mhm. du dëgg. man maa ngi dëkk si Cap. ñun dañ dem dañ dem traversé dugg Mermoz dem mhm. olympique di fa entraîner depuis temps xale. fa laay dem ba ma demee nag ma gis. Mhm. Sa Thiès di fa entraîner. benn coach bu fa nekk. Mm-hmm. ne ma naa jox cours. Mm-hmm. Mm-hmm. ma dem jox ko cours. mu demee dama yegg si France fekk deux jours le combat am bi ñoroon pare doon maa ko entraîné dama ñëw Badara ñaan ma ne ma naa ñëw. si mais mais Kossou Dia xam nga Issa mhm. Thiès dafa nekk nit ku baax koo xam ne daaw mhm. ñu daaw ñu communiquer ah, mais chaque mhm. fois su mu gisee olympique dina ma jox cër ak respect waaw nag man il faut nga wax ak ñoom man man man xam man moo gis sama bëgg course damaa bëgg ngeen waaj diggante Boy man combat bi ma ma mm-hmm. man man Modou Lo. Modou man man Modou mooy sama mbër. Mm-hmm. Franc mooy sama mbër. laaj de sànni Junior mooy sama mbër. Mm-hmm. Goro Sok mooy sama mbër. Papa Sow mooy sama mbër. man waa parcelle la. Fadam su ma la waxee ñaat ñaatu communication laay jot des fois si téléphone ay mbër di ma woo di ma wax ne ma kii moo ma jox sa numéro dama buggoon nga entraîner man man su boobu du la entraîner mais soo ma laajee conseil mm-hmm. naa la ko jox mais par contre benn ay mbër lay entraîner muy Modou Lo léegi à madame, Fadam Fadam Fadam. Fadam dama nek nit madame, xamni dama fidèle. madame, dama fidèle. du madame, du tour, ah du dara mais ñom dañu samay frère modu, xewle madame, mu ñew madame, jitam yépp ñew. xam nga donc sama. culturel la du xaalis moo ñuy boole du tur moo ñuy boole du lépp parce que man bu dee tur rek wax dëgg yàlla. soxla soxlawoo ko mais li ma bëgg nga xam ko li ma bëgg nga xam ko mooy. li ma bëgg waaw. entraîneur boo ñaar mi ngi toj sama téléphone ndax xam nga koy toj mooy dañ laa ñoom ñoom ndekete ñoom dañ laa yàkkamti te yow xamoo ci dara. waaw waaw. waaw waaw mais noonu la. mais fii live bi tey yaa a invité ah man ak yow kese la. amul tabakañ yi amul ko su seex amul kenn maa ngi yow rek la. mais dama amul tafa tafakañu tafakañu nay. commentaire ko su jamono mooy dafa mel ni. kon tey jii waa kër Boy Niang ñoom ñu commencé étudier di xool fan nga jaar ak fan nga jaarul. ah mais man man. xam nga ñoom dañoo yaakaar ne Tapha Kandji bu demee ba naan Boy Niang numéro 2 bis bu bu bis bu dajeeg ba tàkk ca kaw Boy Niang ne ciix ñaari ngebb ma bu laa bu boobaa da koy budd ba ci kaw dër suuf ku dem loolu bu amee loo ci wax ah Eumeu Sène de buddi na eh, Modou Lo eh, ba si kaw ba si eh, suuf Diabon yaa ngi toj kaasi de Modou Lo Eumeu Sène yoon la la buddi si kaw ba si suuf ba békaay ba békaay di wax ne ah daal dina ko daan dina ko daan ah suñu pap suñu pap ah, suñu pap kii Njaay Père Birahim ah. Njaay ne ko ne ko du ko daan de du ko de du ko de mbirum tànk xanaa ko teel a dafa neex moom lii non Fadam. dama koy yee. non xam nga gëj gëj naa Fadam. Mhm. Fadam xam nga mhm. temps yii yëpp yaa ngi may invité ma lay daw. mais man Coach Diop li ma bëgg a xam mooy li a xam mhm. mooy. chaque façon bis bu ñu ne la bis bu combat bi taxaw waaw bu ficelé ko ndax xam naa ne combat bi li ci bëreetul diggante Modou Lo ak Boy Niang li mais bis boo toogee bañ ne la combat bi taxaw na te jii yaakaar naa ne combat boobu sa combat la war a doon ndax waa kër Boy Niang yi jàpp nañ ne Boy Niang day ñëw jël roi des arènes bi dem ñibbi Modou sama rakk la nag Modou sama rakk la lépp lu ma mën a def pour jàppale ko daa ko jàppale waaw parce que du làmb rek moo kii quoi du làmb rek moo ñu moo ñu liyee du dëgg dafa am dafa dem ba problème famille dugg si. du dëgg waaw non non du xaalis man du xaalis moom may boole. amoo problème yooyu. mais mais. amoo xam nañ ne amoo problème. waaw mais li ñu problème mooy. yaakaar naa ne fi nga toll ci sport. nga jël boo. Modou Lo hmm. jël Boy Niang numéro 2. nga gis entraîneur bo Niang commencé woote ci suuf. ñi bëgg ñi bëgg ko su jamono wax ñi bëgg ko su jamono xam ne ndax dama gis ne dama yaakaar ne ñoom Pikine amul benn mbëru arène bu fa a am ci Modou Lo victoire. kon combat bi te yaakaar naa ne défaite bi gën a rëy ci Modou Lo mooy teg titre roi des arènes daal di koy ñàkk te loolu ko su jomong defet la ci yéen Modou Lo titre roi des arènes am lay teg bu ko tege ci kaw boo ñëng tafa Kandji naa ne saa yu ko tege mu dina ko ñàkk loolu nag ah yaakaar naa ne am na liggéey bu rëy bu leen ci xaar. dafa ni keroog keroog supp kañ la añi Asupukan yung mga rek. Tafakan ji kerok. Ih, hamga tafakan ji mom. Ya. Sini. Sini. Omba bizina ku yere. Ya, tafakan ji kre. Sini ko. Komba bi dama ko yere. Ya? Mulu boy ñam. Tafa dama ko yé. Tafa. Dama ko yé. Ndax ko mo Non, non mais, mais, mais, mais c'est normal. C'est normal. Parce que tey làmb dafa war a am beneen une dimension bu nga xam t'as tey gars yi war nañ ko yóbbu dégg donc euh, ñii di bëri ay ñaari combat ñetti combat tout le temps tout le temps tout le temps donc day baax aussi Modou jël Modou ñum jël ñoom ñoom Boy Niang xam nga jël ñoom mhm. ñoom ñoom Ama Baldé xam nga donc jël wàcc si suuf mhm. xam nga combat yi di gën a neex Pikine lii donc loolu dafa am solo gëm ne jàppar yombal combat bi ne Boy Niang day ñëw jël roi des arènes bi dem ñibbi Pikine noonu kon yow mais mais mais mais mais mais su su neexee sax Boy ñamu mun nañ ko jox franc <laughs> Kousi Diop li da ngay sous-estimé da ngay sous-estimé waa Pikine. du gis ne. adversaire kenn du ko sous-estimé. adversaire adversaire daa daan bàyyi bi deux mille la daan. mais mais waaw mais mais mais ah, xam ne Modou moom nangu naa ko moom palmarès am moom wax dëgg yàlla ci làmb balaa ko mbër amati di nga daj lu ne. exactement te jom Modou am na jom am na fula gëm na lu muy def. mais ku si jom li ma lay laaj li ma ci tontu. waaw ñëwal Fadam. tey wax dama koy dagg bëgg dama bëgg mu nekk lu gàtt rek. ndax Boy Niang Modou Lo gis moom xeex bu ko jaaxal ndax Boy Niang yow miy entraîné Modou Lo gis nga ci moom bëri bu ko jaaxal wala xeex bu ko jaaxal. non Fadam combat combat bi taxawul mais am coach Modou dafa am ay coach du coach Jabon kessé Modou dafa am ay coach Modou am coach am am am am staff xam donc voilà Modou surtout c'est mu neex.

waaw waaw ah. Hmm? combat la daal combat la combat la bu neex la keroog nag tafaakaan yi gis naa ko sa live yi muy muy wax rek ah, xam naa ne moom suppu kànji bu neex bi suppu kànji bi moo neex ba nga xam ne tey. waaw Fadam <laughs> Fadam keroog daal xam

Il faut pas vendre. <laughs> ah, waaw waaw te combat bu neex la daal yàlla na taxaw jàmm donc euh, yàlla na taxaw jàmm donc euh, ñu bëri ko si jàmm ko su jàmm neera tey yi moom kese la jàmm benn waa Pikine du dugg ci live bi waaw

mais Fadam. mooy si Kaab laa daal. li ma neex li ma neex Boy Niang bu taxawee. combat bu bëri coow lay doon te li ma jeexal mooy li ma ci gën a neex mooy dar bi du sori. dar bi du sori. waaw ah, mais noonu la Modou Modou tam il faut il faut il faut gars dañ ko namm. gars yi maa lañ ko dee. dañ ko namm dañ ko namm. yow xanaa xanaa xamoo ne woon combat bi tey su taxawoon suba. mu mu ko jox ko si jamono. ma ne combat bi tey su taxawoon tey tey tey suñu waxoon ne ko le mois février. lañ koy bàyyi xel bu baax di ngeen faram wax. mais fa mais faram koo xam ne su amul combat day. entraîné mu am combat day entraîné boo ñaar si mi barki dem contre Balla Gaye 2. mais Modou mais mais Modou day entraîné. tous les jours yow daal yow daal mën mm-hmm. Fadam. Fadam mm-hmm. Covid bi muy am. Modou mu ngi entraîné mel ni si combat la ne te man lu ma gën a neex si lu ma gën a neex man damay bëgg athlète athlète bi may entraîné damay bëgg nga bëgg lu ngay def nga xam lu may def nga sol lu nice ma sol lu nice ñu teg ko si teg lu nice liggéey lu nice. Tapha am nga Tapha Kandji am nga fi ay réponse Tafa Kanji Tafa Kanji Tafa Kanji moom xam nga. loolu fu nekk dañuy ah. dugg ñoom. mais ñun Sénégal jamono tey da ngay xuus ci da ngay xuus ci aada tuuti. damay xuus ci aada tamit. kii Fadam. mais ñoom ñoom ay Sénégalais waaw mais ñun xam nga dañu am. am ay hmm. ay ñaanu. ay ñaanu xaas. pousse de moom dagg ko foofu. da bu laagali bu laagali. <laughs> non non Fadam il faut ma yegg. <laughs> ñëwal. <laughs> Fadam alquran lépp ngi si. moo jaaxal ñëw ñaata suraat la. 114. Mhm. 114 yooyu. Mhm. lu ne mu fa. lu dëgg. moo tax ma ne daa am koy soxla waat xam nga kañ laa koy ñaanu baatin. Mm-hmm. ñaanu baatin Fadam. dama toog ak sëñ Pape Malick si Malick yal na ko yàlla yërëm. mu ne ma ah dama dégg ne Modou ngay entraîné ma ne ko waaw mu ne ma xale bu baax naa ko ñaanal bu baax mm. donc. am nañ ñaan daal parce que. Mm-hmm. ku sa papa gërëm. Mm-hmm. ku sa yaay gërëm. Mm-hmm. say mbokk gërëm la. wallaay ndeysaan dara si waaw gis nga ñaanu papa ak ñaanu yaay. wallaay ndeysaan loolu mooy gàllaaj doomu aadama. nga boole si nag. di julli di ñaan di jàng alquran di tari alquran xam nga hein ah? donc di selal lool rek baatin la solo amna solo li gëna solo tay ci mission bi moy day am buntu yu ibbi tay ku su yamum da nga ay buntu yu bari ci walu lamb wa yaakar na ne Modou Lo le hmm. roi des arènes nek na mbeur mu ñu respecté nek na mbeur moo xone ni mbeur mu jëf jox yaakar na ne hmm. milieu sport Modou Lo wane na ci ay méthodes yoo xam ne nii jafete ne mbër wane ko benn ci état de ci wàllu gëm entraînement ci wàllu physique ci wàllu athlétisme bëri ñëw bëri combat boo xam ne nii ñaari vingt minutes wala ñaari quinze minutes li combat bi di diir nga gën a dugg ci biir combat bi te combat boo ñëw Modou Lo liñ ci war a wax daa bari moo tax sax du ci benn méthode rek laa koy téye tafakaan ci kër dalal naa ko mu ne tey jii bu combat boobu taxawee mooy boo ñëw kaala nañ ko kaala gu weex gi mooy nekk na roi des arènes tey jii ñoom fi ñu teg combat bi jaaxal na ma waaye ko su jamono tey jii da wax lu doy waar danga nga wax lu doy waar da nga da nga lu doy waar ci combat boobu. mais daal fi ma jëm ak yow mooy dinaa dalal tafakaañ yi xam naa ne suba wala ginnaaw suba mu ñëwaat te buy ñëw dinaa la woonal tafakaañ yi dina ñëw nga déglu li muy wax. waaw mais tafakaañ yi tafakaañ yi dañ ko dañ ko toggalaat suppu kànji bi rek. de <laughs> koy invité daal nañ ko toggal suppu kànja bu neex sàpp. Euh. xam ne dina am yokk euh. xos. Mm-hmm. am tiir bu doy. waaw. ak ak kànja bu doy nag. non man man ko su man xam naa ne daal xam naa ne ñeme na ah. Tapha Kandji trop. sànq da nga am lu am solo loo solo xam nga. muy. Mhm. bi ma saa yu ma la laajee da nga naan ma ama seen ama seen ama seen ama yaakaar naa ne jour bii ngay wax ndax man làmb dama ci yor preuve yu bari. mais mais Fadam fa la jóg tànk bi rek. non mm-hmm. non Modou Lo jinne la. mais Fadam suma ma la nee Eumeu Sène moo dàq bëri ñu bokk ñu dàq bëri si Sénégal. mais ndax boo ñaata. bilaay boo ñaata tamit. boo seen seen premier combat seen waaw waaw ñëpp xam xam xam loolu vraiment Boy Niang ku am xel la kuy réfléchir la kuy calculer la kuy bëre la di teg pied droit xam nga hein? donc euh, donc vraiment champion la champion la te te te Modou dina ko jox cër bu waaw mais mais kenn du kenn du kenn du kenn du Modou parce que man. Fadam du ma jay xale bi du ma jay du ma jay. waaw waaw waaw <laughs> kii. moo nekk si côté bi wala. Père de Gaulle la Père de yal ah, na ko yàlla may gudd fan waay. ah yàlla na yàlla dolli jàmm téléphone bi xam naa ne bu continuer une minute rek mu fay. maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. di ñaanal di ñaanal amateur yëpp. gars yi maa bu fekkee wax naa fi dara lu naqari kenn rek maa ngi koy jégalu. waaw tàggatoo. man tamit de ah waaw. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp vraiment tey faram wax la woon nga ma quoi mais nag nii la quoi xam nga donc. temps yëpp yaa ngi koy invité nag mais dama dama dawoon. ndax li problème da nga ne salaamaaleykum rek. da salaamaaleykum rek. ñu nuyu tubaab ñi ñu nuyu tubaab ñi bu baax ñi gars yi di suuf nan di ko su jabong dugg na woow leen ko gaaw gars yi woo ma ma dugal ma ma jàkkaarloo ko su jabong. waaw non kenn man man sa live kenn du kenn du si rax. jërëjëf. kenn du rax kenn du fi lekk supp ka kenn du fi lekk supp kànja di wax ay wax loo xam ne. dama kañ bi maa ngi lay xaar suba jërëjëf kontaan naa